jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defee saa su ne sunee su ne fu làmb nekk wasaare làmb jéem leen koo jëgtal ba ngeen mun cee jot ba ngeen mun koo seetaan ci anam bu sell ak bu rafet tey nag ñu ngi fii ci géejawaay gox la boo xamante ni goxu làmb la waaye xale bi ñu fi woo day xale boo xamante ni idaali ñu ngi ñu ngi moo ñu fi woo booy bi di def open press muy Mbaye Tine Junior ci combat bi nga xamante ne moo dox ci diggante moom dab daan mu ngi noonu dugg si na li lay won ni saa su ne rek xale yi ñu ngi innové ci làmb waaye bu ñu wootee mbooloo da leen di wuyu si xam nga ne boo gisee Mbaye Tine nii mu indi ci mbooloo nga xam ne vraiment làmb du biir day xëy rek wasin waaye xale la boo xamante ne am nañ xel ci moom waaye bàyyi nañ ko xel ci moom waaye yaakaar nañ ni ci làmb la bokk kaay nga xool Adama Mbaye mooy xale bi jël boppam tuddee ko kii mooy wane ni làmb saa su ne mbër yi dañoo am ci lu ñuy roy déglu. ma ne yàlla ko defal ndam. sa turandoo la sama doomu ndey la du turandoo de sama doomu ndey la. moom sama diggante maa moom sama yaay ñu ànd. waaw yàlla ko yàlla defal ndam barki Seydina Mohamed. bu ñuy bëree njool la dab daan. moom mu nekk ndaama ci koom. bu ñuy bëree ñoom ñaar lan moo ko mën a arrangé ci koom. dab daan nga wax ñun dañ koo dab dañ ko daan si kàttanu yàlla. li mu nekk nekk njool liggéey nañ leneen ndaama njool yëpp lañ liggéey yàlla mooy moom ndam yàlla na ko yàlla may ndam barki Seydina Mohamed. yow looy maa ngi waaj maag Jara kii day daan damay daan kàttanu Seydina Mohamed moo ak lamb yëpp nañu daan. Jara nga jël. Jara day xaar day xaar su ma ñëwee dama xam ne ñëw naa koor gi na ma a wax du ma wax mais saa bii du ma ko jàppee lu métti laa koy tegal barke borom Tuubaa dama liggéey. waaj waaj waaj jëlal ndeysaan ay xale ngi noonu ay espoir ngi noonu ay xale la ñoo xamante ni làmb ëllëg mën naa bu ci seeni loxo ndeysaan Caatu Waalo ngi noonu ndeysaan xool ko xoolal ma Papa Boy Djiné Maguette Seck ngi noonu ndeysaan xale yaa ngi noonu Macha Pereira le grand champion ngi noonu lii mooy ndeysaan xale bi moo dégg moo bëre arène nationale barki démb toj ko ndeysaan mu ngi noonu Caatu ma ngay dongali awaay sama yaram daw daa dégg ndeysaan xale baa ngi noonu ndeysaan xoolal ma macca bébé Elton a ngi noonu ci wet ndeysaan taalibe seex a ngi noonu xale yaa ngi ni ndeysaan bëgg na mu doom nday ci loolu ne maa ngi sensé analyse bi mais loolu neex na de ah. yaram bi mooy xasan yaram bi dama ko non dama ko namm dama ko namm amago combat amago ma ñang may ay Moussa Balla Gaye ak ñeneen ñi. Moussa Balla Gaye moom doo ko jot. non course bi li mu nangu rek gann la def. démb la ma mujjee romb woo ma bàyyi jiili. ma ne ko hee Moussa état bi ban état la. bàyyi jiili maa ngi ku ne ne ku day ni maasaay xale la damay entraîné ñu jël ma à Sarr fayal ma ay salle musculation lu ma mbëri ëppale woon salle dan ma koy fayal entraînement la ma sant xale la lu mu gën a dis gën ma arrangé damay liggéey. pourquoi jël ñëwul. non man ku jël kum na ma bëre yow bëre na di ñaanal nag ku ma ñëwal sama doom nday Mbaye Tine ak bébé Elton ak Baye Ndias suñu borom may leen ndami sedd guy mën na ko am na ko yàlla na ko suñu borom may ndax na ko suñu borom may ndam si barke yonent bi ak am combat gi waay yëpp di bëggee ñëpp di ziar ñëpp fépp fa sant font jaar wàll nekk rek maa ngi lay bëggee. moo dégg de. non damay doog a ñëw damaa guddee sax ndax damaa demee ba moo tax waaye tàmbaleegu ma ah. ay ca caatu waalo bébé Elton di waajal sa bis bu rëy yaa ngi ñàkk noo koy waaje waa ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi sama ñaari waajur di sant waa Gunaas di sant sama sëriñ sëñ Ousseynou Mbacke mu sëñ Ateex di sant sama xarit Ndongo Ñang Baalo ku ne xam na ne amul temps sama nit la daf maa bëgg di ma jàppale wóor na yàlla way yi ngay dégg ci sit internet bi moo ma ko kenn du moom di sant mbay di sant waa Gunaas aw ma seen fay di wax combat bi ñaq laaj ma ko dara na taxaw mel ni kuy foto man maa soxla doomu Géejawaay moo soxla damay ñëw jël si li ma moom barke alxuraanu karim bu taxawee bu bu taxawee ma dàq ko daan ko bu dawee ma ko daan dama koy daan ci kàttanu yàlla waa Géejawaay danu la yónnee yàkkamti la waaw waaw yow soo jàppee da ngay loxo bébé Elton yow naa naani naa naani naa naani waaw waaw waaw wàcc ma daan naa la ku daan da ngay féete kaw waa géej waay ku ci bëgg bébé Elton defal nii sa loxo waaw waaw. ngay joxe rendez-vous kañ. ma joxe rendez-vous le 26 mercredi incha allah. barke Seydina Mohamed dina ko duma dinaa ko daan ci kàttanu yàlla barke alxuraan. ñëw man maay ñëw maay def lépp maay déplacé wu duma ko daan ko barke alxuraan. ñaata nga def ci mystique ci ko. non li ma def. favoriser nga mystique. li ma def mënu ma koo compter mais sant yàlla. gisuma ko. soxla ma ko sax gis. su ba dina comprendre waa Géej waa ñoo ma yónni yaa ma dama koy duma dama koy daan barke Sëñ Abdou Karim. ñoo bokk dëkk doon na ngénte mais waxuma ko quoi mais waa xam ne kii xam nga dama koy ñaanal borom defal ko ndam mook lamp yëpp xam nga bébé Elton xam nga bokk nañ écurie mais mel ñi ngi mel na ba tey ñoo bokk écurie parce que écurie Waalo écurie borom defal ko tawfeex ak taysiir ci barki maam Seera Fall ci barki ndogu yi ma jógee maa ngi nuyu nag ku lu Baay Fall xam nga ndoy fi ndogu yi taw feexe na tay siire na di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko ndam lu seddu guyu guyu guyu guyu guyu booy yàlla boo fa yëg luy métti seeram ci barke maam Seera Fall ah yow yaa ngi ci guddi gu bës ndam si kaw kalmu ndur man dongo jël bu rëy si kattanu yàlla amin amin man dongo Seera Fall la ah, yaa ngi ci guddi gu bës dongo Seera Fall la kalmu ndur nga jël Seera Fall xaal na yoon bu yàgg man dongo Seera Fall la saa su ne maa ngi ci ak leer ndam nag yàllaa ko yor waaye ci bés ba duñ def mukk luñ kenn di jëppee barki maam Cheikh Abdoulaye ma Fall laa lay waatal nii Calme Ndour am nga combat bu mag. taxaw xeex ak moom xalaatoo Cheikh Ibrahima la waatal am na combat xaw ma xaw ma mais am nga combat mag kalm ndam nag yàllaa ko yor waaye du def luñ kenn di xeebee. waaye yéen ñaar lan mooy seen avantage. xeex wala bëre ban moo ci sa avantage yow. man sama combat moom lépp mooy sama avantage damay xeex damay bëre. mais li naaguwuma nag naaguwuma defuma dara mais li nekk ci man dafa jafe ci punkal punkal bu sawar damay xeex damay bëre. may def damay xeex damay bëre voilà Mourou Ba ji la xam ne nag nga combat man loolu mooy sama wax loolu rek mooy sama wax. ndam yàlla ndeysaan. jërëjëf bu nu sant yàlla julli ci yonent bi sama xol dafa sedd gis nga kii muy mbaytin mi ak Ama Sène Papa Boy Djiné mbay di force ba taxaw Maguette Seck ak Balla Gaye 2 laa yamale même point d'égalité maa ko téye 40 000 francs ba mu fay ko 200 millions. muy Balla Gaye 2 ma di ko préparer combat publicité bi mu njëkk def ci àdduna muy attaqué cheval ci contre Modou Lo man la ko àndal kon dama wax ni man pour waay la mais xale bi na ko réew mi bàyyi xel kii mooy magam ak Maguette Seck keroog bi yàlla dogalee tey contre Balla Gaye 2 ak euh, euh, euh, Modou Lo ca stade Léopold Senghor barki Seydina Mohamed kii moonu sagal muy Maguette Seck aw askan nag génn golo gudd na waaye loo ca laal borom yëg ko sama xel sedd na sama xel dal na ci mbaytin mii xale bu gëm boppam la te gis nga làmb ñaar yii moo ci ne bu nekkul ci yow booy boo nga dem tëddi te nelaw boo amul fit amoo sañ-sañ mënuloo bëri booy boo nga dem tëddi te nelaw te macha allah xale bi gis naa ci moom qualité yoo xamante ni bu bés baa ngay comprendre. daan nga am mu gàtt lool ndaw lool. yaa ngi dégg at bi sifflé boo ko dee ciix danga nga réccu loo doon duggee ci moom yàlla na ñëpp am jam yalla na yàlla may ndam mun mu ndam lu sedd guy ci barki Seydi Aboubacar si Malick yàlla may kull koo xamante ni si mbëru géej waaye nga nga am combat yàlla may la ndam xaw ma kalmu nduur la xaw ma kalmu njaay waaye li ma leer mooy di nga ko calmer moom. yow nga fas yéene bëree le 26 incha allahu rabbi sa diggante ak dab daan. def nga open press woo nga say mbok say xarit say njagañaale ñëpp ñëw nañ tey géejawaay foo sànni mbàtt mu tàkk lan ngay wax dab daan ak combat bi loo ci fas yéene def ndax mbooloo mi la topp kat yaakaar naa ne boo demee làmb ja waroo faa taxaw sax di xaar mu yéex. waaw Baye Djily ginnaaw ma sant yàlla jul si yoon bi maay sant samay ñaari waajur waa di sant mbëri nga xamante ne ñoo fi ñëwoon tey samay mbokku mbëri ndax géejawaay gëpp benn la quoi si amay dégg tellement kontaan ndax li yombul quoi. maa ngi leen sant bu baax a baax surtout sama grand ama seen junior kii moo ñu yar écrit moo fan ba ma nekkee lu ndaw barki Serigne Ba mu jël ma bëggal ma boppam naan ma booy làmb kenn moomu ko xam ma gëm sa bopp kasa la samay dégg maa ngi sant sama grand Maguette Seck ñoom baytin champion yu fi ñëwoon ñëpp su ma limee damay juum maa ngi xam maa sant champion yu fi ñëwoon fii yëpp tey waa du ñaan yàlla jour ba yàlla may man ndam si ko dab daan instant bi ne wax jaratu ko waa ndax làmb deux moo des dimanche lundi mardi mercredi waaw maa ngi ñaan yàlla surtout nag waaw mobilisation bi di wax gars yi bi ñu ñëw dooleel ma ndax ma doomu Gunaas laa te bii mooy sama première sortie moo war a dem a nationale la fa bëri grand combat te baa jili ma damaa war a damaa war a wane sama bopp ci làmb ndax bii mooy sama quatorzième combat mun naa ne waaw bii mooy sama euh, euh, quatorzième combat si may dégg sant ñëpp 100 pour cent Guédiawaye bi tamit. waa koñ bi. 100% Guédiawaye bi maa ngi sant di jël di jël di jël nuyoo bi di ko teg si numéro si la waa ji loxo ambulance président ambulance ñoom xam ñoom Alioune Seye junior Alioune Seye 2 Amady Ama Sène xam nga ñoom booy Remarque gis naa mooy dégg gaa yëpp maa sant waa di sant nag waa koñ bi nga xam ne fii lañ defee open presse xam nga di sant di leen wax xam nga ñooy jéego si dérangement bi gis naa mooy dégg waaw tey la dimanche ñëpp dañuy repos ñëw sonal leen isa ma dégg kon ñu leen jéegul bu baax a baax. ban heure ngay fas yéene dugg si arène nationale mercredi incha allah. waaw mercredi. ndax làmb mercredi la ñii dañuy liggéey waaj ñii am na ñoo xam ne amaana duñu liggéey sax. waaw làmb mercredi bi dañuy dañuy dañuy teel dem stade ci kàttanu yàlla ndax làmb ji suñu làmb la. lamb làmb la. ji sama làmb la. la te su ma daanee si biir géew bi dinaa la ko waxaat si kàttanu yàlla hmm. waaw. man mbër laa te du ma caaxaane làmb. incha allah kon baax na ñu lay ñu lay jaajëf. sant ñëpp di sant sama doomu nday Buré la. staff yëpp ñoom aar na sama raq Abdou Karim di sant sama doom nday Faga 2 soo ba léegi mi ngi sama gaale si amay dégg maa ngi sant ñoom Modou sama boy ñoom Diallo Ndiombe ñoom Fouta gars yi nga xamante ni xam ñu ngi sonn si combat di sant sama doomu nday Giri. girée ngi nii sonn si combat fan yi fan yëpp mi ngi nii fan yëpp mi ngi nii sama gaal lay fanaan barki Serigne Bamba booy boo numéro 2 di di bëggee sama sama ma Ndiaye Sa ma Ndiaye Sa Thiès maa ngay sant bu baax sonn si combat bi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla def ko champion bu mag waaw ah, di sama chauffeur nag Pa Omar Pa Omar ba Pa Omar démb ma yóbbu xam a scientifique ba fële Kër Massar jili baa jili yaa ngi foofu di sant sama doomu nday Ilimane depuis ba ma nekkee Mbapat ba léegi la si jàpp di ñoom Mamadou Pël xam nga di sant booy yëpp Baye Djili dab daan dinaa ko duma dinaa ko daan doole doole xale ak doole mag bokkul booy bawol 2 l'avancée de Bambey séeréel maa ngay sant. jaajëf jaajëf jaajëf Baye Djili Modou mi ngi nii mooy sama chauffeur de ana mo Modou Khoule ngi nii suñu chauffeur moo ñu yóbbu Grand D monument de renaissance moo ma yóbbu àll ba moo ma yóbbu Casamance sama doom de mi ngi nii Modou Khoule waaw jeex na.